اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jataay bii ñuy tàmbali tey insha allahu jataayu benn ponk ci ponki daara ji la muy lu jëm ci wàllu xam-xam xam ngeen ne daara ji muy fii ci jàkka ji gannaaw julli yi ak xutba yi ñu ngi fiy jàng alquran ci ay mag ak ci ay ndaw ci njàngin woo xam ne sooy boo ñu jàpp ne méthode la bu bees muy ku dem ba mage nga xam ne jàng ay xaraf xaw nga ko weesu wala boo ko weesu wutit mën naa jël ci yow waxtu bu bari du tee nga mën a jàng alxuraan mën koo mokkal muy njàngiinu dégg di mokkal defe naa ne biñ ko tàmbaleeg léegi gis nañ ne ñu ngi seq ay jéego ñu toftal ci jotaayu tey bii moom it muy njàng moo xam ne njàng mu ñëpp mën a bokk la moo tax wutaluñ ko ab téere boo xam ne dañuy wax wut leen téere sàngam ñu jàng ko ndax su boobaa ñu mën a jàng rek ñooy yor téere ba waaye dañoo bëgg mu doon jànginu xam-xam boo xam ne ku mën a liir ak ku mënta liir ñëpp danañ ci mën a bokk ndax làkk win bokk dégg ci lañ koy wax su ko defee kuy enregistré mën koo def ku yor sa xalima yàlla dogal nga mën a bindit nga bind koo xam ne sam xel mën naa wattu it nga wattu ko ci sam xel denc ko saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain noonu lañ jànge woon xam-xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoruñu woon ay xalima sax di bind dañ doon dégg rek di mokkal luñ dégg lu nekk takk ko mu des ci seenum xel ñu garde ko dootuñu ko fàtte boole ko ak di ko jëfee ndax jëfkat moo gën a gaaw ci garde ab xam-xam xam-xam bi nit ki mokkal di ko jëfee du ko fàtte loo ko gën a bare loo koy jëfee nag day gën a mokk xam ngeen ne néew na nga gis ilimaan ju taxaw di jàng alxuraan ba mu yàgg mu gàgg ci faatiha te faatiha alxuraan la ne saar yëpp lu tax mooy bari li mu koy jàng kuy julli ku nekk da nga julli bis bu nekk rakkaa yu bare bare bari ci julli farata yi te rakkaa bu ne da nga ci jàng faatiha kon jullit bi li muy jàng faatiha dafa bari loolu moo tax mu mokkal ko kon lépp loo xam ne yaa ngi koy mokkal ci xeetu xam-xam li fekk yaa ngi koy répété ci wax ak ci jëf jàppal ne xam-xam boobu day gën a mokk kon danoo bëgg a jël xam-xamu fiq rawatina ñaari bunt yu am solo muy tahaara di laab ak julli ñaari yooyu dañoo doon yu ama ama am solo te bari yu ci nekk yu aaji jubbanti ñu bëgg nag ñu bokk jàngat ko ci anam goo xam ne lun weesu dañ koy xam insha allah noonu dañ ko bëggee lun weesu dañ koy xam xam nag buñ ko waxee bokkut ak loo xam ne boo yëkkatee téere bi liir xam ne lii la wala boo dellu siwaatee ca téléphone ba dégluwaat ko xam ne nangam la waxoon waaye xam ngoo xam ne day nekk ci dënn bi boo yoreb téere ak boo yoreb téléphone ak boo ko yorut ñooyam saa boo duggee ci jaamu yàlla gi daal di koy mën a jëfee na nga ko jànge woon loolu mooy xam-xam su ko defee ñaari bunt yooyu ma tudd nga xam ne moom lañ jublu dëgg dëgg dëgg muy buntu bu laab ak buntu bu julli dafa doon bunt bu am solo ci biir buntu fiq waaye fiq yemul foofa sunu yàlla dimbalee ba nu noppi ci ñaari bunt yooyu gis ne dana war a jàll ci beneen bunt ci bunt fiq yi it su boobaa nu jàll ca waaye lanu cay soññ nag bu boobaa mooy gis jeexit yi maanaam yëg ne ñi doon jàngkat ñii li ñu leen doon jàngal ñu ngi ko doon xam moo tax njàngeen wi njàngeenu jàngat lay doon du dañuy tari rek ci seen kanam di jàll di dem waaye lu nu weesu lu ne danoon xool ba xam ndax ñi ngi koy xamam déet kon bala ñoo dugg ci benn bind bu nekk danañ laaj ay laaj yu bari ngir xam ndax li nu weesu ñëpp xam nañ koom déet amuñu yitte ndax am na ci ñu ko xam ok faaw am ci ñu ko xam waaye dañoo bëgg ñëpp xam ko nag ku fa doon teew daal nga xam ne dars bi moom tardé woo ko benn yoon dañoo bëgg li ñu weesu lépp nga xam ko noonu la ñu bëgg liggéey bi kon doxe ni su ko defee daanu jëfandikoo ni waroom xam-xam yi daan jëfandikoo ci fiq mooy suñ jógee di jàngale fiq ñu jiital dara ci pastéef muy li ñu tudde pas-pas téere yu bari ci téere fiq yi boo ca demee da ngay gis ne bunt ba jiitu day jëm ci wàllu ngëm yàlla suñ noppee ci loola door a dugg ci laab dugg ci julli dugg ci koor dugg ci yeneen jaamu yàlla yi ci des ba mu jeex ñu jàll ci jikko yi waaye daal ngëm yàlla daal boroom xam-xami fiq yi am nañ yëg-yëgum ne moo war a jiitu ñi door cee teg xam-xamu fiq bi gëm yàlla nag waxuñu ne ña ngay jàngal dañoo weddi yàlla moo tax ñu war leen a jàngal bañ gëm yàlla déedéet waaye ci jataayu xam-xam lañ nekk boo xam ne lépp dañ ko war a jàngat te li ñuy tuddee al fiqhul islaami nga xam ne bu ñu ko waxee mooy fiq xam-xamu fiq daa am ñaari fiq li ñuy tuddee al fiqhul akbar ak al fiqhul asgar alfiqul akbar mooy fiq ba gën a mag mooy bu aju ci li dox diggante jaam bi ak boroomam ci wàllu pas-pas loolu mooy fiq bi gën a mag fiq ba ca des nga xam ne moo lay jàngal àtte yi nag nooy waajale julli ak nooy julleeg nooy wooreeg nooy génne asakaak nooy aje yooyu yëpp boo ko boolee mooy bànqaas yi nga xam ne dañuy sax ci garab gu rëy googu yi nga xam ne mooy garabu imaan loolu moo tax suñuy muraaja lalee maanaam suñ koy révisé di ko bokk di ko jàngat ñu war a tàmbalee kon suñ jotaay bu jëkk ci jàngat li nga xam ne mooy pas-pas loolu it fàttali rek lay doon ne réeréewu ma mbir ne kenn ku ne ci yéen insha allahu lu aju ci wàllu tawxid ak wéetal boroomam am na ci ab cër boo xam ne lu mu gàtt gàtt def na ko mu nekk ab jullit ci biir jullit yi waaye nag xam-xam bu nekk laaj na di ko fàttaliku di ko nafar ak di ko xóotal ba mu sax ca xol ba loolu moo waral ñu bëgg a tàmbalee foofu yi di Pastef lan moo tax ñu war fee tàmbali moo di Pastef muy pas-pas li dox digganteem ak jaamu yàlla yi nga xam ne ay jëf la julleeg ña deme ne moom ak la ko jiitu muy laab ni ñu demee ak pas-pas dañuy wax ne daa mel ne koo xam ne day ñaw yor ak wëñ ak pusa di ñaw ci loxoom boo yoree mbu mu xottiku wala tiise boo xam ne dafa xottiku nga di ko ñaw da ngay jël ak wëñ nas ko ci puso di boros di ñoddi di borosaat di ñoddi boo noppi li nga doon ñaw daal di aw yoon di noonu la dañuy wax ne wëñ googu yi ngay boros bu fekkee fasoo ko mën ngaa xëy di boros di boros ba mu bari boo xëccee luy xew wëñ nga day rocc ko su pas-pas ba baaxut itam fas nga ko waaye pas-pas bi baaxut mën ngaa ñaw ba noppi boo léegee pas-pas bi nga fi bàyyi woon daal di dañ su ko defee mu daal di rocc ko daf ñu ne ah mboros mii day daa firiku fekk nañ ko fase woon moo baaxut kon day mel ne jaamu yàlla yi noonu lañ mel jaamu yàlla gi lu mu bari bari muy julli muy woor muy laab muy lu mën a doon ci xeeti jaamu yàlla yi su fekkee ne ki koy def pas-pas nekku fa day dem rek te du ci am njariñ la borom ba wax ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura loolu yàlla nañu ci yàlla musal ñooñe jëfoon nañ ay jëf yu bare bare bare bari waaye yàlla nee na dama ñëw tasaare ku mu doon pënd lu tax mooy jëf joo xam ne pas-pas lalu ko loolu moo tax jaamu yàlla yi pas-pas da ko war a lal ki wéetal yàlla kooku moo mën a jaamu yàlla ki wéetal yàlla moo mën a jaamu yàlla kon loolu tomb bu am solo ci li tax waroom xam-xam yi di ubbee seen téere yi xam-xamu fiq ñu koy ubbee buntub imaan muy buntub ngëm yàlla ñaareel ba mooy xam tawxiid mooy tax nga mucc ci li ñuy wax shirk muy bokkaale te bokkaale ki ci muccul mën naa jaamu yàlla jaamu yàlla yu bari waaye mu def genn bokkaale rek bu màbb lim defoon lépp waqal walaqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin yàlla nee na ko wàcce naa ci yow muhammad salallahu alayhi wa sallam ni ma wàcce woon ci ñi la jiitu doon ay yonent ne kat la in ashrakta su fekkee ne bokkaale nga la yaxbatanna amaluka sa jëf day màbb kon jëfa nga fa woon waaye nee na boo bokkaale rek sa jëf màbb na bokkaale mooy jël loo xam ne yàlla dong moo ko moom nga jox ko mbindeef su ko nit ki defee la mu defoon lépp ca ijaamu yàlla màbb na amatul dara day dellu zéro bal day soppi ko sax ay bàkkaar faf kon yàlla ñu yàlla musal ci loolu kon loolu moo tax nit ki war naa wéral pas-pasam bu wér a wér a wér a wér dooru dugg ci jaamu yàlla moo tax ba demee ci suñ téere bi ñu tudde alaxdar yi nga xam ne ci la ñuy tàmbalee di jàng fiq dafay wax ne awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi li jëkk a war ci mukallaf mooy lu wéral ngëm yàlla ngëm yàlla gisu wérul leneen du mën a wér il faut ngëm gi wér nga xam yàlla mooy kan xam lan la yeeyoo nga di ko defal lim wax mbir ma door a tegu ci aw yoon waaye su loolu amut kat ngëm yàlla gi moom bu wérut rek wala deng-deng am ci wala sikki sàkk am ci rek jaamu yàlla yi bu dikkee du am njariñ day màbb xam nga ni jaamu yàlla gu màbb baaxut borom sonnoon na ci ba defee ne dañ koy nangu ñi bañ koo nangu lu tax nanguwuñ ko ne ah moom ko jaamu yàlla gi sax baaxoon na ba mu amoon ci yaakaar waaye dafa xëy rek bokkaale la mu weesu woon lépp yàqu kooku musiba la tawxiid nag ngir ñu gàttal ko ci suñ jataay bii ñu xam ne weesu wut ñetti bànqaas ñetti bànqaas benn bànqaas bi xam-xam la boo xam ne nit ki da koy xam muy loo xam ne jëfi yàlla la akuk moomeelam mu nangu ne lii jëfi yàlla la nangu ne lii it moo ko moom loolu mooy benn bànqaas bi kon bànqaas bu njëkk bi mooy lan mu nangu ne lii jëfi yàlla la ci boppam moo koy def kenn fekk ko ci te it moo ko moom ñaareelu banqaas bi nga ne lii yàlla moo ko yeyoo ci man keneen keneen amu ci cër maanaam man mii nga xam ne yàllaa ma bind yàlla moo ko yeyoo ci man danañ ci dellusiwaat benn bu ci ne ba ko ñetteel nga ne lii ay melokaan la yoo xam ne yàlla moo ko meloowoo moom ñett yi kum leer fi yow tawxiid leer na fi yow la ca des rek mooy jëfe bu jëkk bi mooy lii yàlla moo ko bind te moo ko moom mooy lan sëg dund kan moo la sàkk nga nangu ne yàlla dong la ba mu koy def tàgguwul kenn ñépp moo leen sàkk amul kenn itam nag lu waaye dëng dëng dëng amul ku mas a jóg taxaw ne maa sàkk nit ñi wala kenn mas na koo dégg ci yéen xeetu yéefar wu nekk am na firaw na sax dem na ba daan ana rabbukumul aala waaye ñemewul woon a wax ne maa leen bind ñemewul woon a wax ne maa bind nit ñi loolu moo tax ci diggante Ibrahim ak yéefar bu mag ba Namruus ba ñuy waxante bi Ibrahim waxee ne yàlla day dundal di rey ah mu ne ko man it kat man damaa dundal di rey woo nit mu ñëw mu rey ko parce que jabbaar la ba ne ci kaw suuf si buur bu dëng la woo nit mu ñëw mu cor ko jaasi mu dee mu ne kii maa ko rey woo keneen mu ñëw mu ne ko yow demal ne ko kii dundal naa ko Ibrahim alayhi salaam ne ko jant bi yàlla ma koy jële ci penku di ko yóbbu soowu yow indi ko mu jóge soowu jëm penku nu mu def amul tontu moo tax fa buhita alladi kafar waaw ndax mënul woon a wax ne ah man kat maa koy jële penku di ko yóbbu soowu mënul woon a wax loolu ne ko dangaa wax ne sa yàlla waaye man man maa koy def waaye dofut su ko waxee danañ ko weddi ay nit ak ëpp yu ko mag ñoo xam ne booba moom nit ku bon koo ki di Namruus juddoogul ñu nekkoon fa gis jant bi di jóge penku di jëm soowu su ne maa ko doon def ñu ne ko waxu dëgg parce que loolu bi muy am yow juddoogoo loolu moo tax amul tont mu ne cel kon moo tax kenn musta wax ne maa bind nit ñi ndax da nga leen fee fekkoon ku ko wax nit ñi weddi ko ndax dañ naan yow kat bi ngay judd fi nga leen fekkoon wërsëg ku koy jox nit ñi ki la bind te tàgguwul kenn say waajur yi nga xam ne ñoom lañ lay askanal di wax ne ñoom kii mooy sa ndey kii mooy sa baay ñoom ci seen jëmmi bopp xamuñu kañ lañ la bind ëmb ba dana am ba fés ñi door a xam ne kii kat ndekete daa tollu diggante kañ la woon xamuñu ko kon yàlla tàgguwu leen ba loola di am waaye yemut ca loola waaye mu gàddu wërsëgam ci biir ba la ndey jay lekk muy tànn la ca gën a sell jokkale ko ak ndey ji ci ak buum gu sew mu nekk ab tiwo nga xam ne lañ dindi ya ca nekk yu baaxut ba mu set wecc ba loola war a rees loolu mooy jaar ca buum googee ñëw ci doom jiñ ëmb nga xam ne lu sell doo ngay dugg ci yaramam loo xam ne su duggee ak lekkam akuk naanam day dugg ci biir deretam jaxasoog moom te du aajowoo muy aajowoo nit li nit di aajowoo di dem ca wana wa su lekkee moom du ko aajowoo te ma ngay lekk ka naan ka koy defal loolu ci biir boobee juróom-yenti weer wala lu ko ëpp wala lu ko yées tuuti mu door a judd su fekkoon ne liir bi day juddu rek ay waajuram ne ah nun kat dañ koo ëmboon jur nañ ko léegi noppi nañ ci na demu yoonam sàkki pexe kon defe naa ne liir yëpp suñ leen forut yóbbu leen feneen ku judd ku ne da ngay faatu waaye yàlla tàggat xoli say waajur ba duñ la gëmee ku leen laal sax ñu dal ci sa kaw ñu di la nàmpal di la sang loo aajowoo lu nekk ñu defal la ko ngay màgg ndànk ndànk di dem di dem di dem ba man di dem ak a dikk ñu di la ittewoo ba nga mën a demal sa bopp xol yooyu ki koy tàggat ba sa wërsëg di jóge ci ñoom di dem ci ñoom nam tàggate woon biir ba ba nga juddoogul sa wërsëg di jóge ci ñoom di dem ci ñoom ka ko def kooku kenn kee di sunu borom tabaraka wa taala sa wërsëg woowu it moo ko yore ba keroog ngay génn àdduna nee na la nag demal fàggu ji ndax fàggu moom muy jëf liggéey daa bokk ci yi nga xam ne ay yoon la ngir am wërsëg wu lew te yàlla dafa bëgg nit ñi am wërsëg yu lew yu ñu lekk dafa bëgg itam ñu ñaq ndax ñu jariñu te it ñaq woow yi nga xam ne wërsëg bi yi nga xam ne daa jóge ci aw ñaq da ciy def barke ba noppi def ci tuyaaba kon jëmmi kër kër ji ngay def ngir di fàggulu lew kooku tuyaabaa ngi ci comme ni ngay kër këree di julli di ci am tuyaaba kon loolu suñ borom tabaraka wa taala da ko bëgg waaye di ci jaarale waale wërsëg waaye firiwul nag ne sa wërsëg mi ngi jóge ci li ngay liggéeya dong wërsëg fu nekk lay jóge doomu aadama moo tax borom xam-xam li ñuy wax ne bu fekkee xamoo ko sa wërsëg nekk ngir nga mën koo jëli xamal ne sa wërsëg moom xam nga fi nga nekk ngir mu mën la faa fekk lu tax mooy ki ko yor xam na fi nga nekk kon sun borom tabaraka wa taala mooy ki la bind moo la wërsëgal moo xam sa léppit nag borom bi tabaraka wa taala dara ci yow ump ko waaye yemut ci loola wërsëg woow yi nga xam ne moo la ko jox sëg dund nit moo ko yor sëg dund ndax nit ki dana am wërsëg te taxul mu nekk di dund mën naa am wërsëg bu bare bare bari xëy bàyyi ko fi dem yoonam waaye nag li nga war a dund nga xam ne nangami at yow mii war nga ko am ci kaw suuf di dund ba keroog waxtu sàngam di jot nga war fay jóge loolu suñ borom rëdd na ko ba noppi te loo fi nar a am lu ne nag dana dikk kon moo yore sa dund bu dee jotee moo yore sa dee asamaan ak suuf ak li nekk ci seen diggante ak àdduna ak alaaxira lépp sunu borom tabaaraka wa taala moo ko bind moo ko moom yaa ngi ci biir maa ngi ci ñépp a ngi ci lii mooy xaajub tawxid bu njëkk bi jullit bi lum ñàkk ñàkk ñàkk pas-pas digganteem ak boroomam na xam ne yàlla moo bind bindeef yi te moo leen moom mooy def ci ñoom it lu ko soob màggaayam ga nag ak la mu am ak li mu bind doomu aadama tuuti na ci di ko xam fii nu nekk nii nga xam ne moom la ñuy tudde suuf li fiy dund doon ay doomu aadama lu néew a néew a néew a néew lañu ci ab ab planète bu tuuti ci la ñuy dund mel na ay sànq lañ yuy daw di dem ak a dikk ku ne nag jàpp ne lépp a ngi fii fekk li fi nekk tuuti la ci biir li yàlla bind waxuma la sunu borom tabaraka wa taala ak xam-xam ak man-manam fa mu toll ak li mu xam moom ak li muy gis ci li muy bind waaye gëstukat yi képp nga xam ne science la ñuy jëfandikoo yor ay jumtuwaay yu xarañ yoo xam ne mën nañ cee xame lu bari lu ne ci jaww ji man cee xame lu bare bare bari lu ne ci biir suuf si ñooñu dañuy dem ba mu yàgg ñu jommi ngir yaatuwaay boo xam ne aalam bi yaatu na ko dañ lay wax ne suñ jant bii nga xam ne moonu gën a jege nun waa suuf lu gàtt gàtt ay millions yi jant yu ko gën a tàng moom am na ay nangami millions yi jant yu ko gën a tàng yoo xam ne benn bu ci nekk fa aw tàngooram yem fa la booba tàmbalee lépp di dem lu tax seeni tàngoor ak seenu leeraay du agsi fii soriwaay ba loolu lépp doon bindee fi sunu borom tabaaraka wa taala li ne ci biir di daw te gaaw gaawaay boo xam ne jéggi na dayo dañ lay wax ne biddiw yooyu seen gaawaay bi dañ koy natt ci gaawaayu leer leer ci ab seconde day daw nangami junni ci ay kilomètres mel ne rek nga ne ci lëndëm bi ba mu yàgg nga taal ab torche ab làmp doo xam doo xam wan vitesse la daw sa diggante ak miir bi ba nga jekki-jekki seen ko foofu noonu la leer gaawe ñu ne la am na jant yoo xam ne bu sun jant bii di so jant yooyee feq nañ yónni seenug leer nag muy ñëw waaye seen leer googi balaa agsi day fekk sun jant bi feqaat fenkaat su ko defee moo tax leer googa du agsi kon kooka soriwaay ba fa mu nekk jéggi na dayo loolu lépp doon bindee fi suñu borom tabaraka wa taala yoo xam ne kenn xamul nuñ toll ak luñ doon boo duggee ci biir géej la fa nekk ci ay bindee fi suñu borom tabaraka wa taala ak nañu fay dundee nga dem ci àll bi la fa nekk ci ay mala ak yëpp yii di naaw yii di yéeg yii di gas di dugg ci suuf yi doon yu sew sewaan yoo xam ne da nga naan lii xaw ma lu mu doon ak lu muy jariñ yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala bind na leen ci xikmaam xam na it lu ñuy jariñ fii ci kaw suuf si nañu toll it seenu lim xam na ko kon jullit bi wala nit ki lu mu sàggan sàggan xam-xamu moomeelu yàlla muy lim moom te bind ko waru cee am sikki sàkk wërta dem ba mu yàgg mu jàpp ne nit wala jinne wala malaaka wala yonent wala kenn mën naa àgg ci bind lu toll ne aw fepp ci li yàlla di bind wala mu moom lu toll ne tarfatul ayni ci moomeelug yàlla moomeelug yàlla dafa yaatu lool lool lool lool lool xam ngeen ne yonent yàlla suleymaan xissa bi muy wax bi mi ngi bokk ci xisasu bani israil yi nga xam ne dañ koy nettali ci téere tafsir yi ak ci xisasul anbiya ñu wax ne yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu leen ko weddi bu leen ko gëm waaye nag mënees na ci wéttaliku ci waxtaan rawatina su amee lu koy firndeel ci alquran al karim yonent yàlla suleymaan alayhi salaam dafa ñaanoon yàlla mu may ko nguur goo xam ne du yell keneen di ko am gannaawam yàlla may ko ko may naa la nguur goo xam ne duma ko may keneen nguurug Suleymaan demoon na ba àgg ci jàpp na ne lépp lu mu aajowoo am na ko pour moom lim yilif ci ay jinne yoo xam ne ñooy xëy di ko liggéeyal kenn xamul lu mu toll lu mu soxla it dañ ko koy defal bu bëggee ne andi leen ma nangam dañ ko koy andil ay jinne ak ñeneen sax ñu kenn xamul ñu mu doon ndax bi rax ca dolli borom bi tabaraka wa taala may ko mu dégg lépp loo xam ne njanaaw yi ci kaw suuf ak mala yi dañ koy wax da koy xam di wax ak ñoom itam la ko tàmbalee ci xorondom yaag picc yi naaw ak mala yi nekk ci àll beeg ñëpp Suleymaan alayhi salaam dafa xam li ñuy wax loolu lépp ci nguuram gi ci la bokk ña ko waroon ñii ay jinne lañ ñii ay malaaka lañ ñeneen ñi xamuñu sax lu mu doon luñ doon faf bis bi nga xamee ne picc ma ñuy wax hudd hudd muy musa njubburu dafa naaw ba yaman ca saba mu jóge fa dikk ci suleymaan ne ko man kat tey dama xëyoon doxantu ji waaye daal dem naa ba saba fekk naa fa buur bu jigéen boo xam ne mbooloo mu bare ko wër te am na doole te it dañuy jaamu leneen lu dul yàlla dañuy dañuy jaamu jant bi Suleymaan jàppoon na ne lu mel noonu amut mu ne ko ah li nga ma wax nii de buñ ko toppatoo te du dëgg danaa la rendi wala ma mbugal la mbool mu mett mbooloo mi ko wër ngir nga xam ne ñi ko waroon seeni kàttan fan la toll mu ne leen buur boobee muy wax ca saba digganteem ak moom lu gàtt gàtt mat na ñaari junni kilomètre kuy dem indil ma chaise ba muy toog ca paleem jenn jënnet jóg taxaw ne ko man dey mën naa koo indi bala ngaa jóge fii nga toog Suleymaan da daan def bu xëyee toog di àtte tegub chaisam di àtte ba wàcc jot mu wàcc ñibbi mu ne ko daal bala ngaa wàcc man mën naa koo indi keneen jóg wa qaala alladi indahu ilmun min alkitab am koo xam ne dafa yor ab xam-xam boo xam ne ci téereb sunu borom la ko jële téere boobee borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari kookee jéem nañoo wax lu mu doon ban façon nit ndax jinne la malaaka la nit allahu alam xamuñu lu mu doon mu ne ko mën naa la koo andil bala ngaa xippi daal ne ko mi ngi nii boo gëmmee sa bët bala ngaa xippi mën naa la ko jox daal ne ko mi ngi nii moo tax rek daf ne ko falammaa raahu mustaqiran indahu fi saasi kon borom bi tabaaraka wa taala ay man-manam dafa jéggi dayo Suleymaan moomu ngir moomeel gu bari gim moom ak yërmaande gim am ci bindeef yi ak xalaat gum xalaat ci yàlla li muy lim lim yor ci li muy jox bindeef yi dafa xëy benn bis ñaan boroomam ne ko dama bëggoon waa àdduna ñi ma ci jot a xam nga may ma ma añal leen benn bis walla ma dundal leen borom bi tabaraka wa taala jox ko ci ndigal mu tàmbali di préparé xew woow yi nga xam ne xew wu rëy lay doon tàmbalee ci liggéeylu ay kawdir xam ngeen kawdir ak ah ku ko ci xam ah cin waaw góor waay cin ay cin yu mag yoo xam ne cin yi day toll ne bato cin yi toll ne ay bato tëgg ya nuur ca di ca liggéey di ca liggéey ay weer ba mu am ci ëb lim bu rëy ay ay xar ay këll yu mag yoo xam ne soo ko doon misaal da ngay wax ne ab terrain la maanaam kër mu liggéey ci lig bu rëy nga xam ne foofa lañ fas yéene yekk bi ñu rangalee cin yi ba ñu war a xëy di togg ci bis boobu ba mu indi li ñu war a togg lépp ñu tàmbali di togg ci niñ ko melale mën naa xëy war aw fasam di topp cin yi ba fa muy àgg tàkkusaan day jot mu door a àgg fa bopp ba kon bari na lool ñépp di togg biñ toggee ba tàkkusaan muy doxantu waru fasam borom bi foofu la koy wax ne jifaanin kal jawaabi wa qudoorin raasiyaat jifaan yi mooy dab yi kal jawaab wa qudoorin raasiyaat ak ay cin yoo xam ne dañ leen rangale bi mu xëyee di dox ci suba ba takkusaan di jot muy bëgg a àgg ca cat la daal dina waaw lii de moom tubaarkal la fi muy bëgg a wàññi ko as ndaaba su tuuti as mala wax ak moom ne ko man dama bëggoon bala ñoo lekk nga may ma ma lekk ndax dama amul kàttan mu ne ko bisimilah mu tàmbalee ci cin lu mujj la daal koy lekk ba mu jeex teg ca la ca tegu Suleymaan ànd ak moom muy dox muy lekk muy dox muy lekk ba àgg fa mu tàmbale woon cin yay jeex mu wëlbatiku ne ko hal min mazid ndax ndool leen am na nga xam ne li mu xëyoon togg lépp mala soos yi lekk na ko borom bi tabaaraka wa taala jox foofu Suleymaan ab bind ci moom mi yor wërsëgalu ñépp kon lan lay xëy di dépenser bis bu ne te mala bi kenn lu ndaw lii mu ko yabalal kenn rekk la ci moo tax sunu borom tabaaraka wa taala ak moomeelam moom rekk mooy moom kattanu sunu borom kattanu sunu borom rekk la ku dul moom ku ñàkk solo nga surtout doomu aadama ci ñi ci gën a woyof mbir gën cee ñàkk solo ci la bokk ak dégg rek bu duggoon ci tànk bi te të dañ duutu nelaw duutu am jàmm duutu xam nu muy def bu metit ñëwee noonu bu feebaree noonu lu néew rek tàggale na ko ak sagoom waxuma la ak dundam dund bu gàtt la kon bokk na ci lii wéral tawxiid nit ki xam boppam xam fi mu mën a yam xam daaira bi nga xam ne fii mooy daaira mbindeef fii la mën a yam kiy borom bindeef yi nag fa nga mën a yem yow foofu la mbiram tàmbalee te kenn xamul fu mu yem lii ci xeeti tawxiid yi mooy tawxiidu nangul yàlla li mu moom te bind ko muy moo bind lépp moo moom lépp su loolu leeree ki la bind bind lépp ba àggal wëlbatiku ne la defal nàngam def nàngam jooju mu la sant ne la bàyyil nàngam loolu tudd ibaada mu jaamu kon yàlla lim bëgg ci yow bi mu lay bind mooy nga jaamu ko kon sañ-sañam ci yow mooy na nga ko jaamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu xëyee ànd ak Muaaz ibnu Jabal teg ko ci gannaaw mbaam mi mu waroon alayhi salaatu wa salaam luy dox ba mu yàgg mu ne ko yow Muaaz ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci ay bindeefam ak lan mooy xaqi bindeef yi ci seen borom لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالعلم